moytu lépp loo jàppoon bàyyi ko ndax ki ñuy wuy ji du ko ndaw. ki ñuy wuy ji dafa ñëw leeral yoonu politique ba mu leer. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf dàq ji la yor karawaasam. kon tey bu ñëwee seet si la. Mm. am lu ñuy waaj. dëgg la parce que konaat du ma bàyyi ma fenn. dëgg la Badou Faye du ma bàyyi ma fenn. Ah, dëgg barki démb nelawul dama ko téye njett ko. ne ko euh, Fatou ma ne ma ne ko ki ñuy wayal la luñ ci mën li li leneen la moo tax tey bi ma waxee dañuy ñëw seet si la mm. vraiment mu kontaan ci tey ndikkuñ mm. ah. boo xoolee 96 lañ génnee Anabas boobu la suñ taaw di nàmp boobu la Ibra Ibra Diop di nàmp wala suñ doom tubaar fa kàll macha allah chéri booba la euh, Modou Kara di nàmp <laughs> mais avant ngeen beneen doom ci dëgg ah, kii la ki ma tuddee Diop Massi. ah waaw waaw waaw Pa Diop Massi. ndeysaan <laughs> bu baax bu baax a ngi noonu. Tuar ko tubaar allah tey ba mu ne ma kep kep faatu mo ne ko nam jali mo ne ma dama beug nga juk mo ne ko lu xew mba jam la mo ne ma tay ki jara seti la ni seti fa allah lam toro buuru gede sal ngaari man bam ko waxe rek la xamne ah tey sama journée dina neex. vraiment vraiment. mu woo Fatou ma ne ko naam. mu ne nañ seeti le président de la république. loolu mënuma lu dul am ci xol bu neex. sàll ngaari lam tooro buuru gën a yàlla sa jàmm yàgg. dëgg la baax vraiment kenn war fa kàlla macha allah bàyyi Amadou. ah ma soeur. séeri Marème Faye Sall. man bu may xool Marème Faye Sall ak yow day mel ni may xool sama jali bii toog. dañoo bëggante dañoo tubaar fa kàlla macha allah. dañuy lobante xale yi lobante wuñu. problème bu ne am nan ko waaye teewul dañoo jàpp mu jëm kanam. lekk lekk nañ suñu sombi man ak moom suñu ruy lépp. Ah, mais zéro na xale yi muñ toog xaar ko parce que loo toogul xaar ko. tubaar fa kàlla caaf nan naan. dëgg la lekk waaw dëgg la. <laughs> caaf yooyu waaw <laughs> mais c'est normal. c'est normal c'est normal dina la rey woo. xam nga mais xam naa ne yéen ñaar da ngeen di dajjantaa. loolu am moo tax affaire bi garaaw ci affaire yi waaw. léegi mënuma sax ñàkk ba ñaar yéen. waaw nga dëgg nga dëgg. ndax sax wax ni ah émission bi am jëmale ko ci dafa bari. dëgg la dëgg la. ndax su ma nee caaf na naan xëy na ndax émotion bi la rek. dëgg la dëgg la Fatou Mbaye. waaye sol lu jekk lu seer ñëw ci yow seet si la tubaar fa kàlla ndax nag réew bu yëngoo la ko yëngal ko ëpp doole. dëgg la bañ dëgg la. te président da yëngal réew mi. te mën a waaxu yow mën waaye xam fa ngay jëm a gën a wóor. tubaar fa kàlla macha allah man li moo tax yàlla ba ñoo boole. dëgg la daf may dégg tout le temps. dëgg la waaj bi doo ko bàyyi. dëgg la. séeréer lan nga bëgg. bëgg waaj. mais mais Fatou vraiment loolu yéen surprise ma leen defal noppi rek. mais euh, li ma xam nga nag sa doxalin yi man moo tax ma bëgg a dem mais Jami bu Diop vraiment man xam na seen jotaay li tax ma koy namm dafa yàgg na depuis depuis Fatick mais tey dama ne foog ñu jël mais jël keroog yaa ngi ma noonu da ngeen am xom da ngeen bëgg ma produire leen xom oui dañu am benn projet xam naa Fatou dina ko wax léegi dañu am benn projet xam nga 96 96 ba 97 dañoo am benn projet tuddee ko Macky Sall Macky réew mi ah boy na ci loo xam ni ñu dund ko dindi ci àddina non ma wax nii non non maa koy produire procès bu neex. guddeeg bëccëg kenn rew ji. maanaam ma ci tuuti ma ci tuuti maanaam ma ci tuuti. Euh, soo ba tey Fatou maanaam ma ci tuuti maanaam ma ci tuuti. waaw président single bi mettiwul. waaw. yu way ko harmonie rek. la ilaha illallah Fatou wuyu ma wuyu ma ni ko defoon ci studio Laye Diagne dañ ko way harmonie. damaa gëj a nag. man dem du dikk du ma yónnee. ku dem di yaayu Amadou ngi Anseri Marème moo ngi borom réew mi Macky Sall. Sall ngeen borom tali yi. Macky Sall borom teer bi ah, Ali Baba Thiam tëgg bi dafa dawul. mbaar muy jaaga. mbay te mais ma Fatou ah, Mbaye Fatou Mbaye dama kontaan. par rapport ak da nga am station mais dinaa leen defal loo xam ne mosul am ci Sénégal man président maa dugg ci wàññi. en tant que président damay dugg ci woy bi. Fatou dafa am tension. da mooy nag Fatou fi muy woyee moo sori non fi muy woyee moo sori quand même ah. non may la ma tuuti ci woy may la ma ma ma tuuti jox ma jox ma tuuti ma woy dama cee bëgg a sama woy may ma tuuti dama a dem du dikk du ma yónnee dem dikk wax ma ma neexal la baayu ama doo moo fi nee mais Fatou Fatou xam nga Fatou waay jali jali bu jul la dama bëgg way boo xam ne xoolal da nga naan ma loo wax ma dugal ci sama way dafa lan buzz ah ñu ko daal waaw da ngeen kii waaw fit trop ñu fitiriñ la xamte <laughs> ah, nga may la ma tudd loo xam ne a ko may la ma tudd rek eh, Fatou waaw bu mu ne yëkkati rek ah ma yaasin jaal ma yaasin jaal ma yaasin ma yaasin jaal ma yaasin jaal ma yaasin. lan léegi nag da ngeen koy saa def ko yow maa kii yow maa kii yow maa kii. ñëwal. yow ma kii dikkal. waaw wax sax ñëwal mais dikkal nga wax. waaw ñu ne ma wax. booy way day ma xool. kon d'accord ñu dem. xoolal octave bi bu ko fàtte. su ma la xoolee moom mii la ñuy way de. moom la ñuy way mais day ma xool ba bañ nga dégg amee. waaw damay damay dafa am yoon. sànq sànq bi ma xool damay ban xool la rek reetaan. Ah, baal ma di ko xool ah. maa kii moo ngi yow maa kii ngee yow maa kii ñëwal yow maa kii ngee yow maa kii ngee yow maa kii ñëwal léegi bu ngeen moo ko dëkkal maa war a ñëw ah léegi nag dama ñëw ne man man Macky Sall dama bëgg wax lu bees a bees ndax li ma fa indi ndax ma fa indi terre ma fa indi presse ma fa indi coupe du monde coupe d'Afrique lépp maa ko indi kon loolu dama bëgg Sénégal la xam ko président dafa mel ni da jaawale dip toogul de dig ñëw yow dip yow da ngay rab yaakaar naa ni rab boo woon obso daal la wala nga woo ma mataar la kawlaar. non ma pour mënul bokk. non mënul euh, parce que erreur am nga ko jëlee. ndeysaan ngaaka beneen bi tey dañ koo jëlal anabas bi ba xam ndax. waaw xanaa mu jël ko anabas mais erreur mu jël nii ngaaka ko moom. waaw dama la gën naa ci ma naan ma naan airu. parce que euh, Fatou damay bañ ëpp gars yi booy porte problème tamit ngaa kaa moom air bi nga way ak dip ak ñooñu xale yooyu. d'accord amul problème way leen way garaw. atia. ah ñu yëkkati ana baas rek. xam ne moom laa way sama. xanaa mu leen beneen. oui mu leen ma proposé leen ana baas. am na ni kay ñun ñu. proposé leen ma leneen ana baas ba fa yàgg. ak atia proposé leen ma leneen Fatou Boye. moom la ñuy xalaat. jërëjëf atia beneen leneen lu dul loolu lu bees tàq. lim ñu jot no bind daal xam nga non non waxuma li nga waaw lim no, anabas kay way ngeen ko pare way leen ma benn Fatou dama sanson yi doon def ci ci école ba xam nga sama xel daa neexul naa ko fàtte mémoire yi xam nga suñ mémoire dafa bari li ci nekk kon yoon daal anabas rek ngeen am seen vie am na yeneen sax dañuy xalaat wujje wujje ñaaw bokk wërsëg la waaw waaw ngeen boobu Kan mau boobu Assane Ndiobo ko moom yaakaar kon lu tax koy proposé non dama ko dama juum. série boobu moomuñu ko. boobu moomuñu ko. bu ngeen créé la bu ngeen créé yow tam buy jëlee faral sa bañ nit ki war tax nga koy tuumaal. non Fatou Assane la ko moom ba léegi. waaw xamoon nañu def comme yéen dama yaakaaroon dem ngeen wayu bés mais comme amu dama leen di yow ngeen dem xalaat bu ngeen ay après ngeen ba leen parce que dafa su ci kanam. am nañu riigu riigu rigu rigu am na ko moom nga ama rigu rigu yaa ma rigu rigu makki rigu rigu non non non rigu rigu baaxul baaxul xoolal pass leen ci lii di ngeen xalaat tam incha allah bu soobee yàlla dinaa am taxawaay bu am solo bu moom ci yéen mais da ngeen di xalaat après ngeen jaaraat dégg nga da ngeen fekk yor ma wet liquide gerte gerte <laughs> nag jërë la bëgg a. wàcc leen bëgg a tax xaas boobu bëgg a tax sa mën a teel. wàcc leen si na